qu'on puisse corriger cela que ni CDC euh, ak li nga xamné nekk moo e, ñi ngi def bi à sa place exactement euh, ñaa dem avant ce que ni est-ce que walu complicité am aussi euh, da nga gisé ñu mel face ak dossier Ousmane Sonko. le juge constitutionnel moi le juge électoral rek mom moy até lepp lo xam walu élection la. Hmm. le dernier mot lui revient donc mom moi, yor kàddu gu normalement bu dee wax na yoon ak charte réew mi mu wax ko wax deug yalla ciow waruta am Ousmane Sonko ak keneen ak keneen ku ñu togn ci processus électoral bi dina ko déclarer candidat ba paré mu tek ko fu wër parce que wëru way bi am na ko. mais est-ce que amna na fu mu ko teg. wéeruwaay bi concrètement ndax parce que gisul attestation si toutefois day juger ci li ko jox. waaw mais doo juger en méconnaissance de tout le reste puisque juge électoral day xol situation dëkk bi. Mm-hmm. xool aussi contexte bi. ak mm-hmm. lépp ki nga xam ni war naa mën a ñëw jox la ay këyit yu mat defu ko am na benn bu manqué mais yow teg nga ci say bët vidéo yaa ngi fi. Mm-hmm. xam nga boolem média yi nga xam ni ñu ngi fii dem nañu seede loolu parce que gis nañu benn benn benn mandataire ay dafe dem foofu noonu ñu naan CDC. ak ni mu demee yëpp gis nañu ko barricade nañu fépp foo xam ni mënoon na faa dugg saa yu demee liñ koy wax mooy duñ la ko jox te duñ ko teg fenn wala ñu ni ko ñoom liggéeyuñu tey ñu ñëwaatal suba bu ñëwee mu tëj biroom ne moom neew fi kon ñu gis ni loolu ay élément la yoo xam ni tey conseil constitutionnel mën na koo téye boole ci këyit yi nga xam ni Ousmane Sonko déposé na ko ay avocat am. Mm. yu ni que effectivement dem na fi nga xam ni foofu la war a jëlee këyit bi mais. ñi ko ko war a jox ci yoon joxuñu ko ko mm. te teguñu ko fenn lu mm. dul tayeef parce que tamit administration elle est écrite boo ma nee doo ma jox dara danga may bindal li waral ni yow joxoo ma mm. ma constaté nga ma yóbbu kayit boobu mais tey jii nii bu ñu waxoon CDC yóbbu ko tribunal tey ñu ne ko demal layal sa bopp CDC mënu laa wax dara lu cohérent. léegi euh, euh, gisu leen si liste bi parce euh, muy bañ fichier électoral bi. fiche de parrainage bi dafa ni woon nekkuloon ci fichier électoral. Hmm. bi ñu ko attee fee ne Ziguinchor jox Ousmane Sonko dëgg waroon na joxe fiche yi. Hmm. nee na du ko joxe. Hmm. ki nga xam ni moo ko sut ci wàllu yoon ci wàllu élection muy Sénat Sénat jox ko injonction mu tontu sena tontu bu forox ne du ko ko jox parce que état def na pourvoi en cassation encassation boobu ñu jóge ci loolu ñu joxaat Ousmane dëgg Ousmane ko dëgg. teewul DG jox ko fils de parrainage bu mu demee ci CDC di déposer aussi euh, caution bi tamit gis ngeen nu mu demee kon man japp naani budul complicité tayef mu ngi ci moy amna envie de nuire à un candidat. donc bobo tey conseil constitutionnel mi ngi toog di seetaan. li wax rek daa tayale yëf yi fi mu wara a nangou ko légui da bëgg bu ñëwé mu né kat man de du sama rôle alors que kenn wul ndax conseil constitutionnel mom mo moo moom waral li wala waral ciowli wala waralul coow li conseil constitutionnel moom képp koo xam ni nga ni togn lañ la ci yoonu élection mm. ci mom ngay jébalu mom ngay dem mu àtte deug bu dee daf la wara jox deug mu jox lako té normalement conseil constitutionnel warul dérobé wu ne man dossier incomplet la gis non non non lolou du motif dossier incomplet si c'est pas motivé d'accord mais si c'est motivé parce que kérok gis nañu ño xamni andi wuñu casier judiciaire écarté nañ leen est-ce que coow am na coow amut gis nañu ñoo xam ne tey andiwuñu sax attestation bi wane ni ñoom caution fay nañ ko. moo tax ñu ne est-ce que yéen teewoo leen. dëkk ñooñu versé wuñu woon caution te CDC prouvé na ko. Hmm. looloo tax ñu écarté leen loolu bari na ci ay candidats. gisoo kenn ku ci coow aussi. tey jii nii coow li fan la ci Ousmane Sonko la ak ñi nga xam ne tey demoon nañ di defi parrainage ñu ñëw déposé en bonne et forme seen parrainage. Hmm. ñu daal au au motif que ces fichier c'est inexploitable ñu rejeté Nous ñenn ñi ni que manipuler nañu fichier des hmm. recours. Hmm. dernier cas candidat malgré recours candidature. nous y Diomaye <laughs> c'est hmm. ridicule mais alors dinañ si ñëw exactement euh, mais euh, euh, la question qui se pose moi, est-ce que concrètement xalaat ngeen li nga xam que moo le conseil constitutionnel dina leen peut-être dugalaat si li nga xam que moo Miri parce que tout le temps dañuy naan la liste provisoire du faral di xaw a bañ a méngoog ak li que moo la liste officielle même si sax ab wàññi teef le Sénégalais yi gën a xalaat ak yokk liste. Mm-hmm. en principe ah, warul warul am waruñu wàññi kenn en principe puisque ko dem ba. Hmm. valider ay parrainage am. Hmm. ba xol euh, kayitam yi lepp matna li ci dess moy statuer sur le fond. donc sur le fond moy xol ndax casier judiciaire bi c'est moins de six mois bi ñu laaj mom nga fournir ci date yi ak yoyu nonu yoyu mom vraiment ben candidat mënu see joom légui nak Ousmane Sonko ndax mom dina am deug ci conseil constitutionnel li ma wax moy si nek rek moy Ousmane Sonko amul dara lo xamni dal daal mën na mën ko téye nekkat warul nek candidat te conseil constitutionnel. mais si Yakar concrètement yéen am ngeen si ils sont bii mais Yakar, mënoo ko mënoo ko mënul weesu nga nga nga gars ko ci dëgg ak ci chartu réew parce que ci l'as le ñu basé wu conseil constitutionnel vous déposer liste définitive amul benn recours amul benn recours. mais il na recours 48 heures. après ah, euh, liste provisoire la woon moo tax ni mën amne nous droit contester. xam nga yow mun ngaa contester candidature keneen koo xam ni mm. moom nga mm. war a ànd jongante mm. donc looloo tax ñun ñu def suñu recours bi te am na fu ñu ko wéer parce que tamit ñoo bàyyi nii nii nii mu sedd ndax conseil constitutionnel ba tey moom defagul dara li mu def mooy mënatuma mënaguma statuer ci Ousmane Sonko mënuma ubbi dossier am parce que dossier bi li ñu xool daal mooy matul comme matul ñun mënuñu koo valider noonu donc affaire yi yomb na te teguñ tegu ko ci benn charte kon juge conseil constitutionnel bi constitution lay basé te bu bi nga charte réew mi au sommet. kon tey jii ñi amé ay jafé jafé tribunaux yi mënta est wala tribunaux yi nañu mais amna ñu bañ. Mm. te du sen waréf sax mais bañ nañu ko ba ci sénégalais ñoñi xaar conseil constitutionnel luñu wax luñu def rek ñu xamni avenir du Sénégal mu ngi en jeu mais aussi l'histoire retiendra que ñom ñoo fi waro waroo atte dëgg ñu am nu ñu demee ak nu ñu nu ñu sénégalais mais sénégalais yi nelawuñu ëlëk dinañu am dinañ fi togaat diko ko Hmm. Donc, Alors, donc aujourd'hui, le Conseil constitutionnel est devant l'histoire. Alors, mais si vous non, peut-être demain, ça analyse nga dal japonais aussi à yakar par rapport à recours que xamné que Mori Ousmane Sonko. Mais ce que Conseil constitutionnel a dit, diagnostiquer parce que depuis tout à l'heure ñi dégg ki nga xamné que Mori euh Assoumane mu dal di dit euh le conseil bi dafa dafa nous ñëw indi ci xamné que Mori son pouvoir politique, c'est-à-dire son pouvoir euh, de de de, de voir les aspects sur euh, plusieurs manière exactement est-ce que jàpp nga ni li nga xam le conseil tey dina daal di employé sa casquette politique pour aller au war remédier cette situation bi nga xam ni itam ñu koy dund jamono ci waaw gis nga man sama raisonnement bi fenn rek la ko tek hmm. <coughs> moy que ni euh, euh, gis nga ce dossier là c'est un dossier purement politique. ok la question d'Ousmane Sonko du début à la fin tout est politique. Hmm. Euh, li ci li ci justice wul hmm. nga gis ni même sax le cas de Mame Mbaye Niang ki ki doon naan dafa bëgg sétal deram motax mu dem euh, kanam tribunaux yi dem na kanam tribunaux yi tribunal nako am nga deug mais deug gogou nonou doy ko hmm. voilà donc euh, mu duggaat ci ay recours yi ken xamul donc pour wax la ni rek c'est-à-dire euh, dañuy mbubboo justice mais li fi nek yëpp je pense que sénégalais gis nañ ko comprendre nañ ko hmm. motax tax ma ne la bu ñu taxawee foofu rek dañuy gis ni dans la dans le dossier d'Ousmane Sonko du début à la fin presque tout est politique vu que tout est politique motax fiñ fi ni on ñu am ay jafé, jafé, parce que buñ bu dee yoon dëgg la euh, nu mu tudd sax yoon mo doon def ligéyam yoon di wax yoon diko jëfé jëfee li na duñ fi fekk mais tey jii bu problème bi demee ba yegg fi parce que dañoo toll moment bo xamanténi euh on on voit on voit que de la pression politique mais ya ngi gis même les administrateurs qui se sont euh, affirmés favorables à la remise nous mu sax des des fiches de parrainage à Ousmane Sonko ana ñu tey ñu bëri yóbbu nañ la retraite anticipée kan xamul fu nek nekk dugal nañ len ci frigo ñi nekkon ci administration té xaw favorable avec la la la politique d'Ousmane Sonko. Mm-hmm. où sont-ils. Mm. entre parenthèses je sais que c'est une question un peu sensible mais dafa am cor yo xamantene Sénégal bo fa démé tay et que nga am fo deuk ou bien ou bien nga am noo mel ci Ousmane Sonko tay c'est-à-dire c'est-à-dire c'est des c'est des gouvernement bi limu mu li ci deuk bi mo bari pour wax ne tout est en manœuvre. <laughs> contre. voilà tout est en <laughs> manœuvre contre l'élimination de la candidature d' Ousmane Sonko. loolu euh, maanaam ñàkk koo wax euh, est tu seras d' mauvaise foi. te deug mo doon lo xamantene yalla ko mom man mom mako kenen mom mako yalla moko yàlla rek kon nañ ko ko delloo moo tax nag ma ne la le dossier d'Ousmane Sonko du début à la fin tout est question politique vu que tout est politique maintenant euh, ñi gis ni bo fiñ ñu ni aussi deug amut. parce que dëgg nga xamante ne sénégalais ñu ngi koy teg bët te ñu nar ko ñu ngi teg suñu noppi pour dégg ko ba léegi mënuñoo fexe ba dégg ko. Hmm. donc lan moo nekk di dox jamono ji ni budul hmm. dëgg. Hmm. ce qui laisse dire que c'est un plan bien réfléchi et bien mûri damay delluwaat ci sama théorie bi. peut-être xam naa ñi may gëm du bëri euh, dama la ne cest à

Euh, immunité parlementaire ça protège déjà ñi xañ lako dañuy dem ci élection yow waro dem waro dem assemblée nationale sénégalais non ben waru la déglu deux war nañ fexé ba mëna réduire sénégalais mëna la dégg. trois aussi buñ la bëggé teg loxo duñ ci am ben problème parce que depuis la question d' Adji de de Adji Sarr Ousmane Sonko ñu nangu passeport mënul génn réew mi mais après la question vidé nañ loolu lu tax delloowuñ ko ko c'est parce que dafa am lo xamante mu ngi dox. donc bu ñëwee ba tollu fii man ma euh, en tout cas sur quoi que l'on puisse dire hmm. actuellement hmm. le pouvoir est à deux doigts d'éliminer Ousmane Sonko presque à 90 réussir maintenant la vérité c'est quoi aujourd'hui d'après l'Union, le gis ont fi l'impuissance même parfois de la justice face à la volonté politique est-ce que tay recours bi dina mëna a joxe dara dama né man personnellement. Hmm. man awma ci ça je ne suis pas optimiste. je ne suis pas optimiste déjà sax candidat yo xamantene sen dem sax ken waruko lam lamé muy ñom basir Bassirou fay ken atté wu leen taxawuñ ci kanam tribunaux yi ben danté tegul sen kaw. Hmm. ñuy dugal recours pour éliminer ces candidatures là. alors euh, mais quand même il faut aussi reconnaître que ni euh, yeen sen entité amna na erreur yu bari li nga xamni tam daf nekk si politique ci wàllu politique wala ci wàllu yoon. ci wàllu yoon ba tey jii mu daal leen mëne si li nga xam ne que mu di wi à travers ñu ne vos discours à travers ñu ne vos actes euh, justement euh, ce qui euh, justement mu leen daal di conduire jëmale seen di solution. oui bon.